ziar Sénégal ziar Afrique ziar monde entier Samagal TV moo ànd ak yéen ci yéen doxantu doxantu bii nag ñu ko amalee tey fii ci yëmbal atek na ci bergerie Seydina Mohamed bergerie Seydina Mohamed nag doxantu bi ci def dañ fiy génn waale ñaari espoir yi nga xam ni jëloon nañ ko ci euh, fan yee ci ginnaaw am na léegi 5 mois ban koy jël ñu ngi fi jël ñaari espoir bi mi ngi tudd Modou Diouf amoon 6 mois ban koy jël tey dugg na ci 11 mois beneen espoir bi nag tudd Baba Seye ban ko fi jël moom it amoon 3 mois tey mi ngi dug ci 8 mois nañ xool Modou Diouf ba muy am 6 mois après borom ñëw wax ñu fii mu toll nii nga xam ne tey ngi am ci 11 mois lan mooy liggéeyam ak lan la fi defagum ak fa la toll. kii nañu jàkkaarloo mooy Modou Diouf Modou Diouf ba ñu ko jëlee amoon mais instant bi am na 11 mois et quelque léegi mu dugg 12 mois kilifa gi da nga waaw ñu ngi lay nuyu Cissé. waaw Modou Diouf waaw euh, di kontaan seen taay fii Bézir Sirna Mohamed. Uh-huh. si uh-huh. nekk fii ci yëmbal euh, Asegna bi. macha allah. Uh-huh. Modou Diouf moom lañ jëloon mu am 8 mois. waxoon nañ ne ñëwaat fii booba muy am at 2 ans dañ koy topp mais instant bi dawal nañ 3 mois gis ni. progression am gis nañu mi màgg nu mu demee noonu Modou Diouf fan la tool waaw Cissé jërëjëf ngeen ñëwoon fii. jëloon ko sama espoir. tey nag mu ngi nekk ci euh, maanaam dugg ci douze mois am. Euh, moom nag mi nekk nii nekk xale nag di màgg màgg bu doy waar. Mhm. tamit euh, di génne ay maturation yu tribu. Mhm. macha allah. moom mën nañ xam kañ la commencé tëb est na fi doom wala. waaw si def na production parce que bu muy am 4 mois. Mhm. ci la commencé jox fu muy tëb. 4 mois waaw même à l'âge de 4 fekk na mu tëboon ba ni ñëw fii fekk na mu waaw bu ngeen ñëw fii fekk na mu commencé tëb boobu yaag fekk na mu commencé tëb mais nii nii def na production boo xamante ni dal na xel trop ah, boo xam ne am nañ ci moom yaakaar aussi sama sama gaal mboo jiite ngoo dañ koy topp mi ngi fii ci bergerie Seydina Mohamed liggéeyam nag la ñu war a topp xool fan la jëm après ak lan la fi indi waaye nag macha allah boo gisee xar bi xam ni xar la boo xam ne élevage war na ko xaar war ci yeneen liggéey kon ñu bàyyi ko mu défilé tuuti ñu xool Modou Diouf ñu dem ci beneen espoir bi nga xam ne jëloon nañ ko fi préfet bi merci bu ñu jógee foofu nag ñu ñëw nag ki nga xam ne mooy Babacar Seye nga xool ñu xool ko ba muy am 3 euh, mois instant bi nag mi ngi dugg ci 8 mois am ñu xool ko moom it fan la toll ci progression am merci à la prochaine. mooy deuxième espoir bi ñu jëloon moom mooy kan. ki moom moom mooy Babou Seye. waaw waaw moom moo nekk nii. ngeen jëloon ko ba muy am à l'âge de mois. ba muy am 4 mois lañ ko jëloon. waaw ba muy am 4 mois ci lañ ko jëloon sama moo nekk nii ngeen jëloon ko mission euh, sama espoir ba muy am 4 mm-hmm. nii nii mi ngi ci 9 mois macha allah. ok waaw. donc man na tëb wala mois 2 mois. ok waaw ñu ngi toog nag di xaar allah. waaw kon ñu ngi Samagal TV ba tey ñu ngi ci berger Seydina Mohamed mooy deuxième espoir bu fi juróom yu Baba Seye nekkoon ngir muy nekk curur bi te instant bi euh, mi ngi ci presque 9 mois kon gis ngeen euh, liggéey bi mi ngi continuer fii ci waaye du tee ba léegi dañ koy ñëwaat xoolaat ko poursuivre ko euh, fan la jëm ak croissance am na lay demee waaye ngeen gis ñaari jeune man fi ñëw ñaari espoir ni fi juróom yu nag ay xar yu rafet macha allah. waaw kon saa waay euh, toppatoo bi moom euh, nan laa deme waaw toppatoo bi defar rek xari moom euh, liñ naa ñu ñëpp ñoo bokk maam. Ah. xar boo ci toppatoo rek defar ko rek mu génne critères yi mu yor. ok waaw te moom loolu la rek. ok xari moom bu ñuy lekk ba suur naan ba man tëdd fu set rek. macha allah li ñu yor dañ koy génne moom. waaw we were.